les internautes du Dakar Midi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi amaat métier ak contenté comme niñ koy faral di ko defee euh, tey nag dañu wàcc sur le terrain pour fas yéene wax ak askan bi waa sénégalais si match Sénégal bi nga xamante ne euh, suba la Sénégal wala jàmbarloog ak Guinée équatoriale la ñu fas yéene waxtaan ak gars yi si classement bi ak euh, nan lañ war a def pour dóor Guinée équatoriale ak lu mu fas yéene ànd ak sama caméraman bi ñu doxantoo xool gars yi ñu wax si seen xalaat ci match si suba bi. maa lay fay. Euh, tur beeg sant bi. la sant Mbaye. Ndeena gisee match ci Sénégal suba ak Guinée Équatoriale. ah daal gagné laa gëm. te danoo sonn fi ne nii danoo sonn Sénégal depuis kañ ngay football coupe d'Afrique ba léegi mënoo fexe saa ba jël te toujours dana Sénégal moo fi gën équipe kon gagné rek loolu laa gis waaw su ma soñoon daal suba moom première mi-temps bi lu bon ñu am deux waaw mën a dalal xel temps ñu fekkaat ko faak deux muy quatre. foog nga ne foog nga ne rythme bu ñu joué keroog mën nañ ko joué waat ba gañewaat. déggu ma. comme rythme bu ñu joué match ci passé bi mën nañ ko joué waat ba wala ñu yokkaat. nga ni yokkaat ndax koroog ñoom euh, vraiment ku ku ku ku soxorul boo seetaanee di nga xam ne Sénégal euh, koroog lim fubal loolu rek la mënoon a ndam rek la mënoon a ndax ñëw na bëgg match bi tamit quoi ñow sëpp leen mayu leen dara waaw tamit loolu ñaan yokk cere dool ñeex rek. bu subaat na gën a rek gën a bëgg leen bëgg affaire bi daal waaw gën leen a bëgg affaire bi rek amul ñëw di xaar rek ay yooyu noonu waaw ñëw rek gën leen koo bëgg loolu daal bu ñu ko defee moom di am ndam quoi. ñaata bii nga bëgg ñu am. ñaata bi bëri na de. quatre baax na quatre la bëgg man. Hmm. ndax man ni may ni may supporter dafa métti man ni may supporter dafa métti ndax man damay bëgg gars yi saa bu xawee jege camp yi rek door mu dugg. man daal na bii di dugg jarul dut bu rafet jarul paas bu rafet moom daal bu ñu jegee kañ rek nan xaaj mu dugg waaw. ñu ngi lay jaajëfal. waaw baax na waaw kontaan naa ci yéen kontaan naa ci yéen bu baax a baax a baax. loolu nga kontaan. asalaamaaleykum sëñ bi nuyu na. maaleykum salaam fay naa la sax. Euh, tur beeg sant bi. Mouhamed Diagne. Mouhamed euh, tey ñu fekk la fi bëgg la laaj ci affaire match ci Sénégal bi Sénégal euh, Guinée Équatoriale noo gisee match ci suba bi. ça veut dire que match bi passé comme ni ñu ko démarré moom première 15 minutes def nañ pressing bu am solo ba sooy seet public bi ñëpp kontaan mais ni ñu démarré match bi c' est très bien sax ba deuxième mi-temps tamit première 15 minutes noonu lañ démarré mais après soo xool ba fee temps bi après changement yi ba remplaçant Bamba Dieng nu mu duggee changé match bi affaire yooyu c' bien quoi su ma sañoon tamit mu comme classement bi au lieu de kii Boulaye mu indi Bamba Dieng si côté changement bi Aliou Cissé su ma sañoon boobu lay andi quoi Bamba Dieng mu démarré loo ko moom ak Sadio Mané ci kaw ak euh, mu pointeloo Famara Diédhiou trois attaques yooyu moom su ko andee moom incha allah gis gis naa ne maanaam au lieu deuxième mi-temps mais premier mi-temps bi sax mën nañ taw équipe bi waaw moom euh, léegi nu mu sax euh, rythme bu ñu joué match bi keroog buñ ko joué waatee mën nañ ko jouer waat wala ñu gën a yokkaat effort. bien sûr bien sûr mën nañ ko jouer ñun sooy seet suñu avantage xamul euh, kii lan la quoi suñu avantage sooy seet si ginnaaw amuñu si problème si ginnaaw c'est assurant quoi mais sooy seet si kanam rek offensivement la ñuy xoolee maanaam lu ñuy déstabiliser défense adverse pour mën a dugal rek loolu mu rek mooy kii bi mais pour si si suuf si suuf moom c'est assurant quoi. waaw rythme bi passé moom c'est bon quoi su si yokkaatee tuuti mën naa duñ egg ak ñoom deuxième mi-temps premier am fay dem sax mën nga dem parce que mën nañ leen mën nañ leen escorer premier mi-temps foog nga ne Sénégal mën nag doo Guinée Équatoriale. bien sûr bien sûr waxuma la Guinée Équatoriale moom moo bu ñu maytu au contraire beneen équipe ñoo ñu war a maytu sans ñooy favori boobu dañ ko war a accepter ñun en tant favori yu ñëw loolu gagné. match par match nag match bu nekk ñu jàppee ko final incha allah suñ ko defee rek mën nañ jël tournoi bi quoi incha allah. ñu ngi lay di la remercier. ok merci beaucoup. salaamaaleykum sëñ bi nuyu naa la. maa lay fay soxna si. tur beeg sant. Abdoulaye Thiam laa tudd. Abdoulaye Thiam sama doomu baay. ah loolu neex na. doomu baay noo gisee match suba Sénégal gi Guinée quoi. waaw Sénégal Guinée Équatoriale ni ko gisee mooy teel a teel a teel a teel leen rek. donc doo leen déglu équipe yooyu moom boo leen dégloo rek après fu ñu mujjee yow dañuy dañ leen sonal li ñuy gëm mooy nga teel leen a yamale yamale gi mooy nga teel leen a dugal ay buts soo leen teelee ay dugal ay buts égaliser bañ jël la ñuy def équipe bu ndaw boo dee football moom na nga koy def da nga koy teg loo xamante ne day sàmm ay ginnaawam ngir bañ jël score bu ñaaw ci ci kaan bi loolu ngay defar moom. foog nga mën na kaa dóor mun na kaa dóor. di non mu ne deux deux deux ba trois pourquoi trois waaw ah, war naa mën a nekk. léegi nan ñan gis ne mën na leen dugal ak ñan nga gis mën nañ leen toogloo ci banc bi. non li ñuy classé woon keroog baax na li indil li ñu indilee bamba rek bamba suñu ci dolliwaatee départ bi c'est bon dina dem incha allah. waaw ah, noonu laa gisee noonu laa gisee en tout cas ñu ngi seen ginnaaw di leen soutenir ngir yàlla may ñu incha allah ci kàttan yàlla. ñu ngi lay jaajëfal. ok jërëjëf. maa ngi lay fay. tur beeg sant. Euh, mbéy nga laa sant. mbéy euh, nga ñu lay nuyu euh, fekk la fii bëgg a waxtaan ak yow si affaire match Sénégal suba ak Guinée équatoriale noo gisee match bi. ah match bi li ma ko gisee mooy xanaa dolli jom rek bon ba pare ñoo ngi xaar sunu attaquant yi liggéey tuuti quoi. parce que boo seetloo défense bi dafa mel ni moo ngi moo ngi ñoo ngi jóg mais côté attaque problème mu dugal dana am mën na am problème mu sélection la sélectionneur Aliou problème Aliou Cissé la wala peut-être euh, dafa dugagul dafa dugalagul effectif bu mu war a dugal quoi parce que pour man nooy amee attaquant bu mel ni attaquant marché bi Bamba Dieng di ko teg ba te wane résultat keroog da nga ko dugal rek mu dugal c'est un buteur quoi. Euh, dugal dugalkat nga koy teg ba pour man dama danga da nga bañ bi peut être moom Aliou Cissé day gën concentré wu ci bañ a encaissé que que dugal quoi bon ñun nag ñun ñoo ngi leen di xaar parce que ñun ay ñoo ngi leen di xaar ñuy xaar ndax victoire u équipe nationale suñu victoire la ñoo ngi xaar ñu ngi liggéey di ñaana pour ñu gagné mais côté boobu daal dañ ko revoiraat quoi ñuy xool nu ñuy def ba dugal que ñu ko au lieu que mu ñuy concentré wu ci ko bañ ñu bañ ñu dugal ñu quoi léegi yow gis nga classement bi ak match rythme bi ñu joué match passé bi est-ce que rythme boobu ko joué waat wala ñu gën a yokkaat wala ñu changé ko. non si gis naa ni rythme bi ni ñuy joué mën naa ni baax na kon Sadio Mané defa fois dama gis gars yi dañ koy euh, clash keroog lu mu wane ni war na ne gaynde la def sincèrement ngay football ak blessure mais tant que gaañu woo do génn te te ku seetaan match bi dina xam ni waa ji da ko gaañ avant muy laal suuf moo ngi kaw. moom ñoom bëgg nañu quoi mais peut-être daa am luy des tuuti boo seetloo équipe yu nu foog lu mel ni Gambie genre yooyu da ngay gis ni amul star mais da ngay boo doon teg probabilité da nga naan ñoom ñoo ñu gën a am chance su génn dem demi-finale que ñun. ñun nag peut-être am na lu manqué wala peut-être motivation motivation collective quoi wala. wala côté management bi peut-être <clears throat> Aliou Cissé nu muy communiquer ak ñoom peut-être mooy des xaw ma daal y'a quelque chose qui manque parce que ñun boo seetloo Sénégal ñun ñoo yor les meilleurs meilleurs attaquants du monde sax laay wax maire milieu terrain du monde meilleur défenseur du monde ça veut dire ñun ay Brésil sax waxuma la sax ay Afrique ay Brésil sax waruñu tee meilleur défenseur du monde euh, si ñun la nekk maire milieu de terrain du monde Gana Gueye si ñun la nekk Sadio Mané moom ñoo ngi koy bool ci meilleur attaquant maire buteur yi nga amaat jooru marché Bamba Bamba Bamba Dieng nga koy teg baax moom des fois dama naan dañ dafa mel ni gars yi dañoo am benn affaire bu ñu enregistré catalogue nii nañ lii nañuy dugal situation nu mu mënti mel loolu nañuy def match bi passé kii amoon na fa place Diao Balde fin match bi amoon na fa place mais da ko teg baax Bamba Dieng doo am jour bu mel ni Bamba Dieng bëgg victoire di ko teg baax xaw nag moom nu muy classé ak lan lan lay xalaat quoi mais nag ñoo ngi ànd ak ñoom dem ba jeex parce que ñoom bu ñu kontaanee jubilé ñun tamit dañuy même bu doon benn une heure temps deux heures de temps suñu feex quoi ni Sénégal gagné na ko Coupe d'Afrique loolu daana leen wax quoi bi bii rek nañuy xaar te meilleur les meilleurs buteurs du monde fana nekk quoi loolu laa laaj merci beaucoup ñu lay jaajëfal. merci yaay boy. Euh, maaleykum salaam wa rahmatulah. Ah, fay naa la. Euh, tur beeg Mohamed la Mohamed Yatta. Mohamed Ndiaye Mohamed daa mel ni yow nga de. ah joueur laa kay. joueur laa day tàngatu rek. léegi loo xam naa yow joueur nga loo gisee match si senegal ak Guinée Équatoriale suba. ah match moom gis naa gis naa si ndam de gis naa si ndam moom. Aliou Cissé moom na na na a xool lu mun a gagné rek équipe moo xam naa moom am na ay qualité moom. lu mu rek match bi passé moom lu mu teg moom bu ko tegaatee moom équipe moom dina ñëw mooy loolu. gis nga ni ñan la mën a toogal si Bamba ak ñan la mën a dugal ko ñoom mel ni Bamba Dieng mën da a da ko war a toogalaat wala mu dugalaat ko. man moom sama xalaat instant yi Bamba Dieng dafa war a xaar quoi si yoonu football a xaar moom instant yi sa daa am blessure mënu ko forcer moom mu jouer si kaw Pape Gueye moom daa war a démarrer Cheikh Kouyaté moom laa gën a gis mu xaar si Bamba wala Gana Gueye rek loolu laa gis quoi. man daa nga gisee classement. ah waaw. non 2-0 rek 2-0 incha allah waaw. foog nga ne Sénégal mën na dóor Guinée Équatoriale. na ko dóor sax lu ëpp loolu. mën na ko dóor lu ëpp loolu sax mais Guinée moom dañoo dañoo dañoo pare moom physiquement match moom du yomb. waaw du yomb de Sénégal moom moo waaw. ñu ngi lay jaajëfal sëñ bi nuyu naa la. waaw ah, sëñ bi naa la. loolu nag yaa ngi am jàmm. tur beeg sax Sagna laa tudd. Jules noo gisee match si Sénégal suba. ah soo moom gis naa ndam de incha allah moom instant moom Aliou Cissé moom lu mu koy moom moom mooy lancer Marseille moom Pape moom suba moom dafa war a jàmm quoi. mais mais moom pour man vingt premières minutes moom moom du mu dee war na sëpp waaj yéen ko ñaar parce que gis naa loolu suba loolu mooy solution bi quoi. parce que équipe bi euh, solidement dañoo baax te te seen équipe bi moom dafa taxaw quoi soo moom lu ñuy jàppale moom teel dugal si match bi te te teel liggéeyu victoire bi taxaw ne le quoi. mais concernant classement yi moom tout moom incha allah ah mun na tegaat même chose bu la jax mu ne nga meilleur sens mu laal excentré ba deuxième mi-temps nga doo ay changement mais comme mu xaal mu ko waxee ma Dieng moom ñun xam na nu mu fa demee dama koy sànni Marseille dama dama koy sànni national mais comme comme ne moom dafa dafa dafa am problème genou tey jour moom te ab te genou mooy appui quoi te en plus moom dafa am dafa dafa am vitesse te am boo amee yenn blessures yi da nga am yenn gêne yi mais pour ba deuxième mi-temps wala comme ni Ismaïla Sarr commencé na ñu may ko chance am mu ñëw laal quoi moom moom suba loolu laa gis moom incha allah. ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier. en plus tamit Gana Gueye Gana Gueye bii moo war a nekk dernier chance am loolu dañ ko war a wax parce que moom coupe du coupe d'Afrique bu mu ba léegi dafa ko fi lenn lu extraordinaire ba léegi nii. Aliou moom suba la ko war a may la chance su su fubalul moom warul fubal suñu terrain loolu laa amoon rek lu ma si wax. maaleykum salaam maa ngi lay fay soxna si. Euh, tur beeg sant Benga. Souleymane nan nga gisee match suba ak Guinée Équatoriale. Euh, match suba moom ah ñu jéem a def dif rek comme daf ndax euh, yaakaar compétition bi moom yàgg na boobu léegi ñu ngi joué te dara te yaakaar naa ne jël ko moom suñu suñu yëf la quoi war nañ ko mën a jël sans pour autant sax. ñu nekk di def sax ay yenn effort na joueurs yi moom am nañ am nañ talent am nañ capacité bi pare nañ quoi comprendre nga pour mën a jël compétition bi donc euh, man je pense que si ñoom la des quoi pour ñu jël kan bi pour ñu dóor tamit euh, Guinée Équatoriale. noo gisee classement bi. classement bi bon match passé bu nekkee classement boobu muy ñëwaat ñu départ moom wax dëgg fa neex yàlla boobu baax na te je pense que comme gars yi lu ñu yàgg di wax rek. on change jamais une équipe di gagné te yaakaar naa li fi nekk bu ko indiwaatee moom war nañ mën a def jëf te bon am na match bi bay passé moom am na biir match boobu noonu bon munoo munoo xam nag ndax ndax rouge yooyu noonu ay kii la quoi voilà dafa am ay manque day rouge yooyu noonu da siy joué mais bu fekkee onze onze bi bii di ñëw moom day day xaw a jafe am naa ne match moom du yomb mais naa ne daal di koy gagné incha nga foog ne moom mën nañ ko dóor dina tamit jine ah ñu may ko dóor rek waaw ah, dóor baax na jarul ñu bari waaw ah. jërë ngeen jëf fidèles internautes Dakar Midi ñu ngi leen di euh, jëfal euh, gis ngeen ni ma leen ko waxee woon au début rek euh, ñu fas yéene dugg sur le terrain waxtaan ak gars si match si Sénégal bi nga xamante ne war na jàmbaloo ak Guinée équatoriale gis ngeen gars yi ku nekk ak ni mu ak ni mu waxee si match bi nee naa leen nii lay demee saa su nekk. ñun ak yéen ba kan bi jeex euh, Sénégal nag saa bu waree match saa bu waree football dañuy préféré wàcc sur le terrain pour wax ak askani Sénégal yi ñu wax ci seen xalaat ak ni ñu gisee match bi. nii lay demee saa su nekk Sénégal duñu fàtte mu di leen ñaanal yàlla nañu am ndam ci Guinée équatoriale ndam bu sedd guy